dellu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara xerawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li nu sampi daara bu leen ma tàngam lu bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal xaraw lu leenu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu ma tàngam loo bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal jalantu leen te ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp te seen bagaani xol te taaten maam jaaro waamele ku naan yaabon taw bawal taw kajoor ak njaambur bawal a ngaan ku mar ëllëg dob jaambur waaloo wal wali di gental waalo ngir naan ci géeju doomi asta waalo njaara mam ku am jaaraama yaa doobay karaama jaaraamam jaamama stema feeru poroxaan jaaraamama mastema feeru nawel te géej gi neex na waaju naan si farwel jaaraamam jaarama feeru poroxaan na xuudde yoo noo ngi detem ba coroxaan gannaaw detem nañu banaan ba mandi yaay mbambulaan sam nu xajul ci xandi ñëpp a ngi mostam liggéey ba saalum fuuta futtiku nañu sagan ne maalum yow sa ayub liggéey bi dem na penku dem soo baarakalla lii du faggu yakkal nga waa géeje yakkal waa jeeri ba ñëpp géejal yow bayoo fu joore mbay kan nga bay nga bayaay ndande jigéen ñi booyal yow nga bay bandindi jigéen ñaa soxla la ñoo yaa doon soxna daanaan nga um nga lambi doomi soxna njiitul sëriñ Aafiya Jaw fii ci Poroxaan kër Maam Jaara ci kër imaam sëriñ Cheikh Bousso Poroxaan ibnu sëriñ Maxtaar Bousso yaakaar naa jotaay bii mboolem ñi aju fii ci kër gi yëpp miin nañu ko ci waxtu wi waxtu wu ñu agsee fii daayira bii di Touba Ocass kóllërante lool ak Serigne seex mii nga xam ni ci baaxam ak ci laabiiram ak yërmandeem ju yaatu ak mën a dalal gan lool moo tax waxtu wi saa yu jotee lépp lu nu jàpp daan ñu ko bàyyi ñëw ziyaar si ko fii ci turu daayira bi ci turu kilifa gi ñu àndal di Serigne Afia bi ñuy ñëw nag daayira bi ànd naa ak ay magam yoo xam ne yàgg nañu ak moom lool ñu mën cee tudd Baye Cheikh Gumbala di ku ñu yàggal lool ak kilifa yu baax yu ñu àndal ñu mën cee tudd Serigne maam Cheikh Bousso mu Baye Serigne Bousso Safoor ak Serigne Abdoul Aziz Bousso mu Baye Serigne Bousso Safoor ak mboolem membre daayira bi ñu àndal yëpp. buñ ci tuddee sëñ Bada Diop Pastef man nañi mu yóbbaale ñëpp kenn desul am na ci ñoo xam ne nag ñoom dañoo nekk ca ndékki ya ñoom lañu ñu bàyyi ca waañ wa waaye ñoom ñëpp sëriñ bi ñoo ngi lay jottali seen ziyaara di la jottali seen nuyoo waaye di la jottali seen cofeel ci yow ndax euh, li nga xam ni defal nga leen ko te njëkkul tey jiitu loolu yàgg suñu ànd nga defal leen ko te toppoo leen ci dara laajoo leen ci dara te moo bu la neexoon de nga doxe ci neneen noo xam ne bu ñëwee mën naa metti ci lool waaye loolu lépp amu ci wayef na tooy makkaan mi sax euh, daa mel ni fi mu ne baatin da cee mujj feeñ yàlla xam na ne bi ñu ñëwee daal bi ñu bëree bëri dañ jàpp ne dal bi dañ ko yokk ñu bëri dañu jàpp ne dañ ko yokk maanaam yaatuwaay bi foo ko takk rek macha allah wees na ko nga xam ni man damaa gëm nañ ko yokk ci baatin rek waaye dal bi moom ni naan tollu toll ne man xam naa ne tollu woon ne kon yokku na ci baatin loolu nag mbirum sëriñ bi la. mbirum sëriñ bi la bari nañu ñëw naan ba ci baas yi laa kii déedéet dal ba yokku na te yëgu leen nag yéenay sëñ Cheikh mi ci yéen moo sori lool daayira bi nag xam ko jàpp ko sëriñ bi loolu ñoo ngi la ci sant te di la ci ñaanal yàlla dëgëral sa taxawaay. li nga bëgg lépp ci liggéeyal soxna jaara yàlla defal la ko. ci baaxuk Serigne Touba. ci maam jaara nangul ñu. maam jaara te nangul leen yéen ñëpp. kenn ku nekk. sa pas-pas ci moom. ak sa yéene ju ci moom. kenn du ko jàngal kenn. loolu moo dal murit yëpp. kenn ku ne jàpp nga ni yow rek yow rek sa maam jaara fees sa xol loolu nag loolu nag payug sunu borom la payug sunu borom la ndax jëfam moo ne toll koo xam ni sa jëf li ko firndeel li ko firndeel mooy xaadimu rasuul loolu kooku lu lu nit dof dof lum xelam gàtt gàtt. wala lum xelam gàtt gàtt. war na xam war naa xam ni. ab liggéeyam. ab liggéeyam. ak benn liggéey. yemut ak benn liggéey. pas-pasam itam. pas ak benn pas-pas. yemut ak benn pas-pas. ju sell. yéeneem ci ak borom. war ngaa xam ni dara desu ci. ku la andil sëriñ bi itam. ku la andil sëriñ bi itam. war ngaa xam war ngaa xam ni. loo wut ci moom. loo wut ci moom. te xam na nga koy wute. te xam na nga koy wute. te ànd caag pas-pas. te ànd caag pas-pas. bu dëgër. bu dëgër. borom jox la ko. faaw sunu ndax digganteem ak yàlla. ndax digganteem ak yàlla. noonu la yaatoo. noonu la yaatoo. digganteem ak sëriñ Touba itam. digganteem la yaatoo. la yaatoo. kon nag. ngi nuyu mbooloo mi sëriñ bi mu ni ñi nuyu mbooloo mi yëpp. tàmbalee ko ci kilifa yi. tàmbalee ko ci kilifa yi. muy sëriñ Aafi ñoom. muy sëriñ Aafi ñoom. ak sëriñ Bada. ak bokk yu baax yi ñu ko àndal yëpp. di ay bokki taalibe. di ay soppe. di ay soppe. di ay wëllëre. di ay wëllëre. waaye di ay bokki jegeñaale itam. waaye kenn ku ne xam na. li ñu takke ci ak bokk. li ñuy takke ci ak bokk. li ñu takke ci ak bokk. muy loo xam ne mënuñu koo séddoo. muy loo xam ne mënuñu koo séddoo. te loolu lépp itam li ko ëppaat solo. te loolu lépp itam li ko ëppaat solo. mooy li ñu takkee ci Serigne Touba. li ñu takke ci Serigne Touba. ndax ñun ñëpp. loolu la ñu jiital. jiital. foofu la ñu nekk. foofu lañu nekk. ndax bi rek. ndax sëriñ bi rek. mooy li war a tegu ci lu ne. mooy li war a tegu ci lu ne. kon nag. bokkuk jegeñaale yi. bokkuk jegeñaale yi. fonkees na ko lool. fonkees na ko lool. waaye bokkuk sëriñ gi nag. waaye jege. ak li ñuy doon yéen ngeen doon moom lépp. ak li ñuy doon yéen ngeen doon ñun ñëpp. bu seen pas-pas bu seen pas-pas dëgërut woon. bu seen yitte kawewut woon. kon. du ñu am xalaat yi ñu am ci yéen. kon du am xalaat yi ñu am ci yéen. waaye yéen ñëpp. yéen ñëpp. ci njiitul Serigne Afia. ci njiitul Serigne Afia. bëgg Serigne Touba laa xam ci yéen. ak dogu ci liggéeyal ko. te liggéey bi itam. te liggéey bi itam. am ngeen ci pas-pas bu dëgër. am ngeen ci pas-pas bu dëgër. seen yitte ci sëriñ bi itam. kawe na. ndax at yi ngeen toll. ndax at yi ngeen toll. bu seen yitte kawewutoon. bu seen yitte kawewutoon. amu leen woon ak defaru. amu leen woon ak defaru. kon fii ngeen àgg ci jëf. du ngeen fi àgg waaye nag. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. bi leen yàlla boolee fu baax. boole leen ci Serigne Touba. ngeen xam ni loolu cër la. boo xam ne yàlla koy jagleel boo xam ni yàlla moo koy jagleel nit. ngeen summi mbubb yooyee. xam ne sëriñ bi. jëf. jëf. ju ànd ak pas-pas. ju ànd ak pas-pas. mooy li mooy li ciy jariñ doomu aadama. ngeen teg bokk géeg lépp fële. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. liggéey bi rëy. te liggéey bi rëy. sell. sell. ngeen di ko jaare ci way juróom wi nga xam ne. ngeen di ko jaare ci way juróom wi nga xam ni. cofeeluk Serigne Touba ci moom. cofeeluk ci moom. kenn mënu koo natt. kenn mënu koo natt. kon nag yéen. kon nag yéen. man ngeen dalal seen xel. man ngeen a dalal seenum xel. te gën a rafetal seen i te gën rafetal seen i dëgëral seen yaakaar. te gën dëgëral seen yaakaar. xam ni seenub liggéey. xam ni seenub liggéey. seytaane amu ci aw yoon. seytaane amu ci aw yoon. ñu ngi ñaan nag. ñu ngi ñaan nag. Serigne Touba. Serigne Touba. ci baaxug maam jaara yàlla nangul leen yàlla nangul leen. talaqal leen talaqal leen. fu yàq àggut fu yàq àggut. yàlla gën a tàppe seeni xol. yàlla gën a tàppe seeni xol. gën a dëgëral mbooloo mi. gën a dëgëral mbooloo mi. te lépp tàppe te lépp tàppe ci sëriñ bi. dëgëre ci sëriñ bi. dëgëre ci sëriñ bi. yàlla kàttanal leen itam. yàlla kàttanal leen itam. ubbil leen xéewal yu gën a yaatu. ubbil leen xéewal yi gën a yaatu. ndax xam nañ ne seen yéene rëy na. ndax xam nañu ni seen yéene rëy na. li ngeen yéene yoon wi rëy na. li ngeen yéene yoon wi rëy na. li ngeen yéene sëriñ Touba rëy na. li ngeen yéene maam Jaara rëy na. li ngeen yéene maam Jaara rëy na. yàlla bu baax a baax. sant leen yàlla bu baax a baax. te lii. ngeen yàgg koo def. ngeen yàgg koo def amin at yu baree baree bare baree. at yu baree baree baree baree. te bu ñëwee rek. te bu ñëwee rek. gën a rafet. gën a rafet. gën am solo. gën a am solo. ñu ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm. di leen gërëm. di feddali bokk gi. di feddali bokk gi. muy bokkuk jegeñaale gi. muy bokkuk jegeñaale gi. ak bokkuk Serigne Touba gi. ak bokkuk Serigne Touba gi. gu sàmm itam sàmm itam wëllëre ah, gi. di ko feddali bu baax a baax. di ñaan sëriñ bi. yàlla defal leen ndam. yàlla defal leen ndam. yu kawe. ci seen liggéey yëpp. ci seen liggéey yëpp. yii ñu séntu ci kanam itam. ci kanam itam. liggéey yi ñuy séntu ci kanam. ñuy séntu ci kanam. mbooloo mi war koo liggéeyal sëriñ Touba. yal na kawe yii ngeen nekk. gën koo rafet. gën koo am solo. gën koo am solo. gën koo yaatu. yàlla mën na ko. yàlla mën na ko. yal na leen ko yàlla defal. man nag. man nag. ci sama digganteeg yéen. sëriñ bi mu ni ci sama digganteeg yéen. ak li ñu yàlla boole lépp. ak li ñu yàlla boole yëpp. ak li ñu sëriñ Touba boole lépp. ak li ñu sëriñ Touba boole yëpp. lu ngeen soxla ci man. lu ngeen soxla ci man. ak nu ngeen ko mën a soxlaa. ak nu ngeen ko mën a soxlaa. daanaka du jar ngeen di ma ci tàggu. daanaka du jar ngeen di ma ci tàggu. wala ngeen di ma ko yëgal. ngeen di ma ko yëgal. ndax nu ngeen mën a jëfandikoo ci man. ndax nu ngeen mën a jëfandikoo ci man. bu ma ko yëgut woon. bu ma ko yëgut bu ma ko laajtee ñu ne ma yéen a sax. bu ma ko laajtee ñu ne ma yéen sax. foofa laa cay taxawee. foofa laa cay taxawee. na ngeen xam ne wàccuwaay boobu ngeen am ci man. na ngeen xam ne wàccuwaay woowee ngeen am ci man. cër boobu ngeen am ci man. ma soxlaal. lu ngeen ma soxlaal. lu ngeen ma soxlaal. lu ngeen ma soxlaal. ak lu mën a doon. ak lu mën a doon. man ngeen cee jëfandiku nu mu leen soobe ak waxtu wu leen soobe tolluwaay boobu. tolluwaay boobu. mooy seen tolluwaay ci man. mooy seen tolluwaay ci man. bu ngeen jëlee loolu. bu ngeen jëlee loolu. loolu ngeen am. bu ngeen ko jëlut nag. loolu it ngeen am. ah loolu it ngeen am. maa ngi dellu leen sant sëriñ bi mu ne kon moo ngi dellu di leen sant bu baax. di leen gërëm. di rafetlu itam teraanga yi. di rafet lu itam teraanga yi. yaatu na lool. yaatu na lool. rëy na lool. rëy na lool. am na solo itam ci bis bi. am na solo itam ci bis bi. nit danañ ko jariñoo. nit ñi danañ ko jariñoo. ñu ngi ñaan ku ci jariñu ku ne rek. yool ba. sunu borom jotal leen ci. li yàlla dige dige la ci dundale. def sa alal ci yoonu yàlla. ak def sa alal ci yoonu yàlla. li ci nekk ci ay pay. rëy na lool. waaye yal na leen Sëriñ Tuubaa jox lépp. ci baaxu maam jaara. sunu xool sedd na guy. ñu ngi leen di ñaanal. yàlla bu ngeen am am ndog. yàlla na ngeen àgg. te àggee ni ngeen ko bëggee. ci baaxu sëriñ bi. daje bi itam. Eh, daje bi itam. yàlla bu mu doon suñu mujj daje. yàlla bu mu doon suñu mujj daje amiin. yàlla nañu fi dajewaat ay at yu bëree bëri. te kenn a manqué it. liggéey bi di gën a rëy. bi di gën a rëy. di gën a sell. sëriñ bi di nu gën a nangul. maam jaara di nu gën a nangul. jërë ngeen jëf jabar nga say bokk jabar aw jaambur. jabar bawol kajoor ak jaambur. jabar defar bawal defar kajoor ak njaambur ñaata faloog ña doon boromi daara amuñu woon ku mel doomi jaara ñataan faloog ñi doon boromi daara amuñu woon ku mel doomi jaara doomi jaara